asalaamaaleykum mbokk yi asalaamaaleykum man daal dama waar si réew mi dama jaaxle lool lool lool lool lool pourtant Sonko de dana woon tekk ñu ko foog nga wax Sonko daa toogoon jàpp njàmbaram di liggéey ñu ne ko sëñ bi di nga wax lu tax mu noppi dama xamul nag Sonko wax na de waaye dama xamul ndax li mu wax arrangé na leen ndax nee na saf gars yi nee safa safa saf man li ma siy teg mooy na sàppaar la toj kaani paccal limon si di ngeen mu baax toj kaani paccal limon amul toxoñu de amul toxoñu bu kenn toxoñu sama gars yi saf saf saf saf sàpp sàppaar la kaani ak rek toxoñu amul sama gars Sonko wax na waaye nag ñu téye rek ngeen ngeen téye de téye leen si projet bi da ngeen si jàpp de projet bi la li wax leen message la lancé ndax pare ngeen ndax pare ngeen la wax sama gars yi bu dara sedd yokku cere dooli ñeex